ak feddali suñu kóllëre ak population wu Diourbel ñi ngi sant ci turu Idrissa Seck démb wax na ma ko nee na ma santal ma waa Njaareem Assane parce que li ma gis ci mobilisation wax fa dëgg yàlla à trois heures quinze heures waxtu tisbaar quarante degré de milliers et des milliers de population spontanément génn ngir topp ko ngir won ko seen cofeel won ko seen gëm-gëm won ko ne ko c'est le candidat du changement Idrissa nee na ma san santal ma waa Jurbel sant waa Jurbel yooyu muy sant nag man dama ciy def sama cantu bopp cantu Moustapha mbay mi nga xamante ne bii moom mooy coordonnateur bi te yàlla def ma topp ci moom tam dénk ma liggéey bi ndax nekku fi dafa ànd ak Idrissa Seck ci tournée yi ci turu Idrissa Seck ci turu Moustapha Mbaye ci sama tur ci turu Khadim Gueye ci turu Amad Nia ci turu Déthié fay ci turu responsable yi quartier yi comité électoral de quartier yi Diaw Dieng Mamadou Sarr Déthié Faye ah Amad Mara Fall ah Ngom ñoo ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen sant di leen gërëm population Diourbel ci mobilisation bi ngeen mobiliser démb wane na démb seen détermination ci jàppale candidat Idrissa Seck mobilisation wu Diourbel bi wane na ne Diourbel opte pour le changement mobilisation wu Diourbel bi wane na ne Diourbel doyal na ci Macky Sall li tax ma wax ko def leen la différence Macky Sall jël na ay nit mu yab leen ci ay kaar rangane leen kenn ku ci nekk mu jox la t-shirt fay la 2000 francs yóbbu la ci stade ba dajale leen fa feesal stade ba Idrissa Seck def caravane fay ñu kenn dërëm dërëm laa leen wax fay ñu kenn dërëm gis ngeen mbooloo mi ngeen gis des milliers des centaines de milliers de personnes li ngeen gis foofu démb ñu topp Idrissa Seck waxtu tisbaar ak njaareem ni mu tànge nit ñi nangoo génn topp ko ànd ak moom jaar kër gu mag jaar kër sëñ Mbay Saar jaar Escale centre ville jaar kër Cheikh jaar Cheikh Anta jaar Cerno Kanji wax fa dëgg yàlla wone na ni Jurbel ak seen pas-pas ak seen gëm-gëm ils sont prêts pour changer le régime de Macky Sall loolu nag ñoo ngi leen ci sant di leen ci gërëm parce que il c'était pas évident ñu bari mënuñoo def loolu ñu bari mënuñoo am loolu de gaañi gaañi ku ci nekk xam na Jurbel ni mu tàngee 40 degré deux heures et demi nga génn <coughs> excusez-moi deux heures et demi nga génn ànd ak nit ñi wax fa dëgg yàlla loolu ak cant la loolu vraiment ku mu doyul dara du la doy kon nag ci turu Moustapha Mbaye ci turu Idrissa Seck ci sama tur man ci turu Khadim Gueye ñu ngi leen di sant di leen gërëm ci forte mobilisation bi sant nañ quatre quartiers yëpp Médinatoul jërëjëf Thierno Kandji jërëjëf Cheikh Anta jërëjëf Kër Cheikh Ibra Fall jërëjëf wax fa dëgg yàlla wone ngeen ne yéen ñu am jom ngeen wane ngeen ne ay gor ngeen wane ngeen ne yéen kenn du leen jënd li génn démb topp Idrissa Seck waxtu tisbaar quarante degré ñu nekk ci mbedd njaareem yi di daw daw pendant 6 kilomètres yàlla na ko yàlla saafara ni ko njaareem bëgge yàlla na ko yàlla saafara nii nga xam ne noonu la population yi démontrer démb seen amour ci idri Idrissa Seck politiciens yi nag amel nañu njukkal population yi li ma gis démb man ci ay doomu aadama li ma gis démb ci nit gis nga Ismaïla jaajëf basiiru Thiam mon frère gis nga li ma gis démb Jurbel ci doomu aadama ñuy daw ci waxtu naa naajoo tàng wi añuñu est que xam ngeen ne añuñu parce que deux heures la mobilisation bi mi ngi commencé ci suba ay douze heures ba quatorze heures la Idrissa di doog ñëw Jurbel mobilisation wu ba ba di sept heures nit ñaa ngi ci topp ci caravane Idrissa Seck di daw lekkuñu naanuñu ba pare kenn jëndu leen ba pare kenn fayu leen dërëm loolu mooy pas-pas loolu mooy gëm nit loolu mooy gëm sa leader kon maa ngi ñaan leader yi nañ delloo njukkal population yi su may xool leader buy opprimer sa peuple su may xool leader politique buy toroxal doomu aadama damay xam ne leader politique bi xamul dara ndax ñoom lii topp ci seen ginnaaw du ñu añ du ñu reer ñaxatooy xep di daw ngir bëgg nit waaye waaye nit kooku bu jëlee réew mi war naa yërëm réew mi war nañu yërëm réew mi war nañu yërëm réew mi man li ma gis jëmb ci population ñu topp Idriss Seck ci naaju tàng wi war na ma ni population yi politiciens yi war nañ leen a yërëm war nañ leen a yërëm war nañ leen dimbale su ma gisee Macky Sall di toroxal askanam bu ma imaginer li ma gis démb xalaat ne ñu mel noonu am Macky ñi ngi woon ci Macky Sall te Macky Sall loolu di leen toroxal damay xam ne njiit bi matul njiit kon maa ngi lancé waat appel politiciens yi gestu leen population yi li ngeen leen jaral bari na daw gi ñuy daw di topp ci yéen di xiif di du ñu lekk du ñu naan ngir bëgg leen waaye waaye bu ngeen jotee réew mi dimbale leen askan bi waaye waaye bu ngeen bu ngeen jotee réew mi tagg leen souffrance askan wi billaahi ñu ngi leen di sant nag vraiment ñu ngi leen di sant bu baax a baax a baax di wane ne nous sommes fiers d'être des Diourbellois Je suis fier d'être baol pour 200% Baol-Baol. J'en suis fier. Je n'ai rien à envier à personne, ni à Macky Sall, ni à qui que ce soit. Diourbel wane na so sa détermination wane na ni carrément Macky Sall daf fi war a jóge wane na ni bëgguñu Macky Sall ndax ñoom kenn ragalewu leen ci kaar kenn joxu leen mille francs kenn fayu leen dara waxtu tisbaar 40 degré ñu topp ab cortège daw 7 kilomètres loolu kenn mësu koo gis kenn mësu koo gis kon nag macha allah félicitations à tous les Diourbellois ñu ngi leen di sant di leen gërëm di kontaan bu baax a baax a baax a baax a baax ci ci li ñu fi def démb. beneen bi ci topp ma bëgg a wax ci burdu bi Ismaïla major Fall wax dégg ngeen ko démb Ismaïla major Fall nee na am na ministre yu bokk ci nguuru Macky Sall épinglé nañ leen ci la traque des biens mal acquis mais kenn jàppu leen ndax ñu ngi remboursé. waaye yéen Sénégal mas ngeen a dégg lii dégg ngeen bourde bi barki démb lii la ministre de la justice wax Sénégal nag kum neex dégg kum neex bàyyi kum neex dégg kum neex bàyyi ministre de la justice Sénégal nee na traque des biens mal acquis bi ñu doon toppee Karim Wade nii ak di ko di topp xalifa Sall nii ba jàpp ko nee na am na ministre am na nguur gi nguur gi mouvance présidentielle ñu ci bokk ñoo xam ne traque des biens mal acquis épinglé nañ leen wante jàpp ñu leen wante dañ ndax dañuy remboursé waaw lu leen tere kon ñu ne Khalifa Sall kon remboursé l Ismaïla Madior Fall moo wax lii mbokk yi kon wone na ni Macky Sall waa këram ñi ngi sàcc alalu Sénégal te bu ñu leen jàppee wala cour de comptes épinglé leen wala IGE danaan leen kaay leen ngeen remboursé waaye yéen kenn bu ngeen dugg kaso Macky Sall yàq na justice su Sénégal Macky Sall nërmeel na justice su Sénégal mbokk yi Ismaïla Madior Fall moo ko wax de Bintu ma sœur Ismaïla Madior Fall nee na am na ñu bokk si nguuru Macky Sall jàpp nañ leen ci traque des biens mal acquis mais li tax téyewuñ leen mooy dañuy remboursé wax ñeneen ñi nag xanaa ñoom seen day liggéeyal ba ñu war leen a tëj kaso lii moo leen di won ne Macky Sall dafa war a jóge mbokk yi dafa war a dem iñaanewuñu ko soxorewuñ ko dafa manul manul il peut peu ay waxam wérul njiit boo xam ne manoo say wax wérul ba pare ngay utiliser justice yàq na justice yu Sénégal Macky Sall yàq na jikko yi Sénégal kon nañ ko fi jëlee yàlla xam ne ne dañ ko fi war a jëlee ñoo ngi leen ciy woo ci la grande coalition idi 2019 le 24 février ñu jëlee fi Macky Sall ngeen noppalu yéen waa Sénégal yéen waa Macky Sall yi nekk ci biir Macky Sall am saxlu leen naqari ñëw leen ngeen jàppale coalition Idy 2019 voté leen sanction ñu jëlee fi Macky Sall réparé waat suñu réew mi nga xam ne yàq na ko ba pare Macky Sall yàq na suñu réew mi comme yàq na ko nag voté leen sanction ñu jëlee ko fi ngir yàlla pour réparer erreur yi nga xam ne moo fi am ba ja topp am na benn waay bu ñuy wax xam nan Ibrahima Aïdara Ibrahima Aïdara nee na moom shérif la nee na moom sëriñ la nee na chef religieux la hmm? je pense que c'est un c'est un inculte un illettré ak koo xam ne vraiment euh, amul culture général ndax dama déglu Ibrahima dara démb benn waxam mu ne moom ak benn xaritam ñoom ñaar ñoo doon waxtaan xaritam bi di ko nettali moom moo koy nettali de mu ne xaritam bi dafa dem Touba di raamal sëriñam kooka jeneen waa ji moom ñëw dox ba ci ba ci wetu sëriñ bi mu toog fi nee na xarit bi sëgg ci nopp bi ne ko sawaay wàccal ci suuf comme man te nga ñëw jébbalu nee na mu ne nee na nee na waajoo ji ne ko ci gan gat laay jébbalu loolu la ay Ibrahima ay dara wax mooy waaju xees jooju naan naan xawma shérif la xawma te du góoma ni sax shérif la man góoma ko mais Ibrahima ay dara moomu et di wax naan ñoom seen tur yooyu naan ay ma rubba géey am rubba du jiite al du jullee alaaji maaliga ay naan boroom dër bi di def allusion à Serigne Abdou borom dër bi un fils de Serigne Touba de Ibrahima moomu nga xam ne ab caga la Ibrahima ay dara ab caga la nit ku bon la ah si si loolu la wax Ibrahima ay dara di saaga ne ab copain moo doon dem demoon Touba màggali ñu ne ko kaay jébbalu mu ne leen ci gan gat laay jébbalu ay dara moo ko wax nit ku xamadi la dafa réew waaju réew la ab ku bon la ku bon la caga la dégg naa ci jabari jàmbur yi lay nekk di wëndeelu dégg naa day wër di di def yu bon lay def léegi nag kooku moom mooy jox nit ñi des leçons de morale Ibrahima dara moom il faut ñu wax ak moom boo xamul sëñ Abdou borom dër bi banaan ay borom Tuuba ay borom dër bi ak yaa fan ay mënu bëgg ay borom dër bi sëñ Marouba bëggee di taalibeeb Serigne Touba di seexu Serigne Touba naan borom dër bi seen tur yooyu kenn xamul tur yi lu mu doon. moom xamul ne sëñ Abdou borom dër bi sëñ Abdoulahi Mbàkke la tudd li tax ñu koy wooyee borom dër bi laa ko bëgg leeral comme c'est une in inculte amul xam-xam amul culture général ay da nan ay dara Ibrahima ay dara xawma sax ndax ay dara nga sant yow parce que yow amoo jom amoo jom te yaakaaruma ne yow jege nga sax daray toq yonent bi sëñ Abdou borom dër bi sëñ Abdoulahi Mbàkke la tudd pour ton information doomi Serigne Touba la li tax ñu koy wooyee borom dër bi culture maraîchère ci année 40 yi moom moo ko doon def dans le Bawol xam ngeen ne dans le Bawol c'est des terres arides amul pluviométrie bu doy mu créer culture de contre-saison créer ay saison ay ay séyaan di drainer ndox mi ba nga xam ne mi ngi fa doon def pisciculture di defaale ay choux di defaale ay carottes di defaale ay tomates ak yooyu loolu moo waral sëñ Abdou borom dër bi ñu naan ko borom dër bi bu fekkee déggoo olofu bawol bawol da waroon laajte mais borom dër bi du tur dër bi du tur dër bi c'est une appellation de la personne bi nga xam ne ci année 40 yi doomi Serigne Touba la dans le nga xam ne kenn mosul yaakaar ne. mën nañ fa def pisciculture imagine leen jamono jii la ñuy wax pisciculture te dans les années 40 sëñ Abdou moom ñuy wax sëñ Abdoulahi borom dër bi mi ngi doon def pisciculture dans le Baol. di defaale culture maraîchère dans le Baol ñun waa Jurbel euh, ay chou ak yooyu ay betterave ay yooyu ay navet yooyu boo koy bay ñun loolu foofu ñu koy bayee la ñu woyee dër bi moo tax ñu doon wax sëñ Abdoulahi sëñ Abdou sëñ Abdoulahi borom dër bi. loolu moo tax comme xamoo nag ñu leeralal la yow Ibrahima Diallo moomu Ibrahima Diallo moomu nag nit ku xamadi la mayu ko buzz il faut ma tontu ko tuuti parce que dafa wax waxu reewande yoo xam ne mag du réew gis nga nit boo jàppee ne yow yaa moom nit ñi dangay nax sa bopp man moo kurusam moo boppam bu ndaw boobu ah, ak xamadeem ak reewandeem ci potu sàmbur laa koy boole ma dugal ko ci waaw pot yi gone yi di demee duus laa koy boole ma dugal du nit ak dara Ibrahima Diallo moomu naan shérif la di fontoo naan di sànni loxo sëñ Abdou borom dër bi ak naan ak naan ak naan naan naan naan ci gan dem dem naa màggalu Touba sama benn waaye dem na màggalu Touba ñu ne ko ñëwal jébbalu mu naan ci gan gàtt laay jébbalu mais ba Ibrahima jàlloo Diallo moomu xawma ay dara ku réew la nit ñi dañ ko war a xam du nitug dara nit ku bon la c'est un maître chanteur c'est un faux type c'est un c'est un vaurien c'est un prostitué caga bon la day fonto doom yi Sëriñ Tuubaa naan borom dër bi borom dër bi une personne boo xam ne un intellectuel créé pisciculture dans les années 40 booba yow kenn daa xam sa baay wala say maam ci lu nekkoon hmm? kenn xamul sa baay wala say boo demee ña nga doon wati banaana di jaay wala ñuy wër di raxasaan ay douche kii créé culture de contre saison di def pisciculture dans les années 40 di di di di bay euh, euh, di bay ay choux di bay di bay ay ay ay ay lépp lépp loo xam ne mooy culture maraîchère mu koy def dans les années 40 moo tax ñu tuddee ko dër bi borom dër bi ñun Jurbel ñi nga xam ne ñooy def culture maraîchère mara culture maraîchère dër bi lañ koy wooyee moo waral ñu naan ko Abdou borom dër bi ngay fontoo sañ Abdou borom dër bi te ngay caga bu bon ah di di wër ci jigéen ñi di lambar lambar di taxawaalu yàgg say nit yor si des maîtres chanteurs ah sol seeni mbubb di wër naan sëti yonent bi ngeen du ngeen sëti dara ay nit ñu bon ngeen ñuy taxawaalu ah lii moo tax Macky la ñu ñu war a régler problème am parce que il se permet de laisser des foo types ñu dugg ci tarixa yi gis nga problème mu tarixa yi yëpp Macky Sall moo ko fi indi problème mu ethnie yi Macky Sall moo ko fi indi yàq na Sénégal des gens yoo xam ne du nitu dara ah il se permet de dire que man sëtu yonent bi laa doo sëtab dara doo nitu tous poto Sambour moo la gën yow Ibrahima Diallo xaw ma Ibrahima dara mu xees moomu mu gàtt moomu tu es un vaurien doo dara nit ku bon nga nit ku yées nga ab caga nga kenn xamut doomi loo doon bu fekkee dangaa ngaa yaakaar nag yow yaa moom nit ñi fii Sénégal la sa baay moomu ko sa maam moomu ko ci réew mi leen dëkk ñun fii lañu juddoo ni maam a ngi fi ku ci nekk xam nañ sa histoire yow kenn xamul foo jóge kenn xamul ginee nga jóge kenn xamul foo jóge nga ñëw nga naan da ngay tudd doomi Serigne Touba mooy wax ngay tudd màggalu Serigne Touba naan naan man duma ma ci gan gàtt laay jébbalu doo nitu tus Ibrahima Aïdara yow potu sàmbur la gën ay neefaree mbaam moo la gën doo dara loolu laa la bëggoon a wax pour nga xam ne waa kër Sëñ Tuubaa yi wala diine ji doo ko foye kër Seydi El Hadji Malick kër Sëñ Tuubaa amuñu benn problème ñu ngi ci jàmm tarixa yi ñoom ñëpp ñu ngi ci jàmm nit ñi population yi mën nañoo am divergence di werante ci seen biir mais ñoom kilifa yi ñu ngi ci jàmm ñu ngi waxante mais yow doo dara kenn xamula nga bëgg bës bëgg ku la ku la ku la xam bëgg ku la may dara moo tax nga def sa bopp lan yow yaay kan yow yaay kan yow da nga am kurus damaa faale sa kurus man man jëlal nga wér dama jëlal nga wér ma fii ba suba yaag neefarey mbaam yéen a yem Ibrahima ay dara xaw xawma Ibrahima Diallo yaw am mbaam nga mbaam nga doo nitug dara ab caga bu bon nga ci jigéen ñi rek nga nekk maanaam da ngay jéem a da ngay jéem saboote di jéem a dénigré yow Serigne Abdoulahi borom maa la ko wax voilà bugguma ci sori nag parce que c'est des gens yoo xam ne vraiment il faut que ñu ñu yamale leen parce que ñaaw na trop ñu leen di jox télévision di leen bàyyi sax ñuy woote ci biir ay nit di jox nit ñi di di jox nit ñi di leen jox crédibilité ñuy wax ci kanamu mbooloo nit ñooñu dañ leen a waroon a jël bés bu set ñu di leen yeew di leen duma dumay métti simmi leen ban set di leen tàpp wala ñuy jël ay sondeel di ko séndal ci seen taat yi nit ku bon la sax ma merloo waa yow te réew dafa xamadi ku xamadi la Ibrahima dara laax mu xees moom mu xawma Ibrahima Diallo dafa wax wax ju bon sëñ Abdou Borom dër bi di ko jéem a saboté ak ci saboté yoonu murit ak di saboté sëriñ bi ndekete moom yàgg na lii ndekete du Idrissa Seck rek ndekete ndekete kii du Idrissa Seck kii xol bi moo bon kii dafa bañ murit yi di ndekete kii xol bi moo moo xiñaan ah yow tarixa séq jàmm boo demee Ndiassane Tivaouane boo demee gaañu ñëpp ñu ngi ci ñu ngi ci harmonie Macky Sall indi fi clivage yu indi ay pëlëg pëlëg yooyu na da ko bandum indi fi affaire u tarixa bëgg a yàq diine yi bëgg a yàq yoon yi bëgg yàq tarixa yi sa genre yu mel ni yow maître chanteur caga bu bon bi taxaw naan da ngay fontoo suñu abdu borom dër bi day sa moromam bàyyi wala sa moromam maam doo dara yow Abdou Ibrahima ay dara doo tus nit ku bon nga waaw loolu rek laa bëggoon wax bëgguma ci sori bon ñu <laughs> ci ci page boobu parce que c'est des vauriens quoi ça permet de dire du n'importe quoi ay kilifa nga xam ne koo xam ne bi muy def pisciculture di créer le développement du Sénégal yow sa bàyyi kenn xamul ma ngay ma ngay raxasi duus wala ma ngay fortaatu ca mbedd ma ah ngay fontoo sañ Abdou borom dër bi ah vaurien li wax leen bëggoon a wax nag nañ delloosi ci li am importance euh, sécurisation vote bi moo ci des Macky Sall pare la sécurisation vote bi nag maa ngi ñaan 45 département yi bépp responsable coalition bi ak foo mën a ne na ngeen jël seen i booy jël seen i sécuri seen sécurité bu doy ba jour élection yi toute la journée nañ leen toggale an añ bu kenn bougé bu kenn bougé ci centre de vote yi bu kenn bougé ci bureau de vote yi maa ngi leen di ñaan yéen responsable bureau de vote yi yéen responsable centre de vote yi bu kenn bougé jour élection yi daal bu kenn dem benn bis dong la nañ toggal ñëpp añ ñu añ ba suur nañ leen jox boisson mais nañ fa yendu nañ fa toog ngir xaar résultat yi ngir kenn bu mu sàcc seen seen kàddu kenn bu mu sàcc seen vote yéen mbokki Touba yéen jeune Touba bu ngeen voté ba pare yendu leen ci centre de vote bi bu ñu leen teree ngeen dugg ci biir taxaw leen jàkkaarloog moom am ngeen droit taxaw à 30 mètres à 40 mètres. te lenn xamal naa leen ko bépp leader politique bu ngeen gis mu dugg foofu ci bureau de vote yi wala centre de vote yi yéen tamit dugg leen amuñu droit ku dul mandataire amuloo droit nekk ci biir centre de vote bi soo voté ba pare da ngaa war a génn ku dul mandataire laa wax amuloo sañ-sañ bi ku dul plénipotentiaire amuloo sañ-sañu nekk ci centre de vote ak bureau de vote bépp leader politique yooyu ministre yooyu ak directeurs yi nga xam ne dañuy def seen doxantu yooyu di dugg naan dañuy xool ndax lépp jaar na yoon bu ñu duggee dugg leen amuñu droit dugg ñoo ngi yéen a yam rek foofu sa président euh, représentant bureau de vote mandataire ak plénipotentiaire moo am sañ-sañu dugg ci biir centre de vote di vérifier yeneen leader politique yi bu ñu duggee dugg leen bu ñu leen génnee yéen ñëpp génn leen yéen ñëpp mais taxaw leen ci bunt bi ba résultat yi jàll ngeen sécuriser seen vote fal la coalition gagnante UDI 2019 ñu changé réew mu jële fi Macky Sall nit ñi noppalu man message boobu laa amoon pour jox leen ko sécurisation du vote daal moo ci des mais waa ji pare na fexe leen daal ba message bi na jàll ngir yàlla vidéo bi na jàll nañu fexe ba fépp bépp département ci Sénégal nañu def ay formation nañ former plénipotentiaires yi ak mandataires yi ak responsable bureau de vote yi représentant yi ñu toog ci bureau yi buñ bougé buñ saw yi buñ dem fenn nañ jàppalente ci seen biir waa Sonko na jàppale waa Idi waa Idi na jàppale waa Pur waa Pur na jàppale waa Madické mais jàppalente leen bu kii demee sax na ko keneen ki remplacer ngir ñu mën a sécuriser vote bi au soir du 24 février ñu jële fa waa ji coow lu jeex jële fi Macky Sall fi mu toll nii yomb na gis ngeen ko ci axe Dakar Thiès Diourbel Touba Mbour gis ngeen ko Kaolack gis ngeen ko Ziguinchor dans la Casamance gis ngeen ko Saint-Louis gis ngeen fépp ne les populations ont besoin de changement comme les populations ont besoin de changement nag mbir mi leer na li des mooy ñu sécuriser suñu vote ba kenn bu mu ko fuqati kenn du ko fuqati Idrissa Seck mettre na ko en garde démb bu naree fuqati mbir mi Sénégal dañ koy dañuy xeex ak ñoom waajal leen ko bu kenn fuqati seen vote bu kenn fuqati seen vote waaw lii daal man laa amoon ci lu ma leen di wax tey di leen sant bu baax a baax di leen gërëm waa Diourbel vraiment di kontaan ci mobilisation bi ñu réservé le président Idrissa kontaan na ci ñun ñii tamit di doomi Diourbel kontaan nañ ci fier ci lool macha allah di leen jox rendez-vous incha allah euh, ba suba ak jàmm bu soobee yàlla.